man Baye Fall nangu naa Baye Fall Cheikh Fall bëgg dama ko bëgg ngir bëgg gi bëgg Sëñ Bamba rek moo tax bëgg daa dafa bëgg Sëñ Tuubaa daa di surtout daa mu ma jàngoor jooju te su ma ko yàlla yàlla mu wér su ma wàññi su ma wàllee jàngoor jooju ji muy wàll muy jàngoor bëgg Sëñ Tuubaa yàlla suñu maam moo ne ko yàlla ñu ko wàll te yàlla mu wér nag jàngoor jooju yàlla lu muy def nañ nañ ko def jàngoor bëgg Sëñ Tuubaa ba rëy ni nañu rëy ñu ngi sant yàlla baax di la gërëm maa ngi eh, yow sa wax foofu ndax bu guddee dana